dépasser les 4 minutes de temps additionnel. Et peut-être un penalty, je ne sais plus quoi va la victoire pour forceps pour le Sénégal. J'essaie d'apaiser les esprits en disant j'ai demandé la, la vidéo assistance. Il écoute. on voit tout ça du côté des, des arbitres vidéo. Ils sont en de, de revoir tous les cas, ça être euh, la première peut-être grosse polémique de cette Coupe d'Afrique des Nations. jàmbaar naka mu. ça alhamdulilah. tur bi naan gisee euh, victoire Sénégal bi ki ñu wax ne Sénégal gagné na ak ak euh, match difficile bu mu joué contre man moom xaaroon naa lu mel nii quoi mankaay ci la bokk mais en plus tamit football Afrique moom moo demee nii euh, surtout bu la joxee favori am na équipe yoo xam ne boo leen xasee ba am leen lu gaa yi di xaar yépp xama mooy loolu quoi mën nga xaar lii nga ñëw fekk fa leneen. te surtout équipe yëpp équipe yëpp ngay gis nga xam ne instant dañuy xaar Sénégal ak par rapport turu joueur yi mais pas turu équipe yi mais turu joueur yi mais en plus tamit bu ñu bu si am rek dina ko jaral lu nekk quoi pour def ko moo tax am na dañuy profité rek am na yenn manquant am na ba xasee ba am rek mooy loolu dañ ciy profité. mais mais est-ce mi-temps bi Sénégal yi amoon waroon mën a teel a euh, maam. Sénégal nag match bi premier mi-temps te demoon na ba à la fin commencé na ñeme Sénégal. Ah, ban message ngay wax maam prochain match yu des ci poule bi. waaw defarwaat rek comme dab ñu xam ne match bu ñuy fubal tamit comme même heure ngay te Guinée ngay am te même match ngay fubalaat match Sénégal amul benn match bu yomb si moom ku defaree ba muy jeex. parce que équipe yëpp a koy xaar nii lay demee fii ba dernier moment amul benn match bu yomb ci moom. ñu lay jaajëfal kàddu ok jaajëf. yéex na yéex <laughs> a eu chaud donc euh, jàpp naa ni on a une très a une très belle équipe donc euh, mais collectif bi des na quoi qu'on puisse dire ñun la c'est nous dans nous donc on doit apprendre vraiment à s'autocritiquer nañu wax réellement les choses là comment ça ça se passe joueurs yi tamit ñu impliqué wu comme il se doit coach bi tamit def lu mu war a jouer donc euh, supporter bi tamit jouer seen partition mais tey match bi seetaan ko on avait une très équipe en face. waaw aussi tamit aussi tamit ñu gis ci équipe bi ah, wóor nañ ko seen bi ku mel ni Zimbabwe eh, gars yi ne yoon nañu moom mooy booboo équipe bi est-ce que Sénégal premier mi-temps waru ci mënoo génn ak ah, ah, Sénégalais. waaw tey fekkee rek fekkee rek la ñuy wax te amul équipe bu ndaw on a une très belle équipe ñëpp ñu ngi naan Sénégal moom mooy favori l'équipe favori c'est senegal Sénégal mais tey jàpp nañ ni Sénégal lu mu demee uti yeneen pays yi tamit noonu demee uti ji mais jàpp nañ ni tey ñun équipe bi ñu am tey équipe bu ñu war a jàkkaarloo war nañ la defal affaire jàll mais match bi tey gis nañ ni vraiment réalité terrain bi montré que ne donc on a essayé mais aussi l' équipe de la Zimbabwe aussi a essayé le meilleur a gagné le meilleur ce Sénégal donc ñaan yàlla tamit comme ni ñu ko commencé bisimilah rahma yàlla may ñu ngi génn si alhamdulilah rabil alamin coupe bi ñëw Sénégal. ñu lay jaajëfal kàddu yi merci. da nga am ndam rek man kay kontaan naa si Sénégal wallaay. na nga gisee premier mi-temps bi ah, ñu yaakaaroon ne Sénégal ci lay ah, ci lay libéré ah, Sénégalais ku si occasion yu mu gisee ak match yi di ñëwaat. waaw Sénégal premier mi-temps bi dañuy joué de mais kii ndam rek lañu daal moom la ñu am mais vraiment dañuy joué dañuy joué boo continuer nii euh, bonam euh, kii match bu ñëw. di billaay dina am ndam incha allah. mais euh, tey li nga seetaan dal na xel quoi parce que. dal na waaw kay Sénégal yëpp xelam bii daal na. man kat sama xel daal ma donc d' abord dañuy euh, féliciter tous les sénégalais di leen euh, wax euh, ñu gën a am taxawaay di kontaan si victoire bi c' est vrai que kontaan nañ mais sénégalais yëpp ñu bëggoon ñu amee ko ndam ameewuñu ko noonu daanaka am na ñun bi ñuy seetaan match bi. ni mu dese une minute wala deux minutes ñu ci bëri découragé nañ sénégalais yëpp. en général ñoom ñëpp découragé nañu woon ba pare donc euh, kii jàngat mooy ndam ñëw na ñu ngi koy sante yàlla mais lii jëlul Coupe d'Afrique des Nations. est-ce tamit équipe bi lu mën a tey dal na xel pour Sénégal mun a ay. effectivement loolu laa lay wax nee naa la lii nekkul loo xamante ni war na mën a jël Coupe d'Afrique des Nations. équipe bu ci mel ni Zimbabwe ñun waruñu woon mën a yegg ak moom bi mu tenir ñu en échec daanaka euh, quatre-vingt-dix minutes yëpp. daf ñu tenir en échec euh, ñu ngi woo staff bi ak euh, le ñu gën a xoolaat joueurs yi surtout parce que ñoom ñooy nekk si terrain bi ñu gën a góorgóorlu xam ne sénégalais yëpp ñoo nekk seen ginnaaw dafa am benn yaakaar bu foor bi nga xamante ni moom la ñu moom moom moo nekk si si si ci ci ci ñoom bañ ko ngal la bañ ko foowee ñu gën a mouiller les maillots parce que lii jëlul coupe d'Afrique des nations ñu ngi sant nag yàlla bu baax ci ndam li mais xel dalagul xel moom dalagul du lii mooy jël coupe d' Afrique des nations tey dafa métti quoi ndam supporter dafa métti Afrique de l'Ouest yëpp dañuy jël favori jox ko Sénégal mooy à chaque fois chaque chaque chaque chaque kan ñuy ñuy ñuy def. tamit manquant yi ngi am tamit dafa feeñ. non eh, football du noonu dañuy yób dañuy jël ay 22 jours teg leen ñu naan ñii lañu convoqué ñoom ñooy war a compétir ay manquant suñ koy signalé ci football bi naan ñii a tax dañuy dañuy foowee équipe bi. ku ci nekk war na mën a remplacer moromam def fa feu et flamme pour mën a indi ndam li blessure ou pas équipe bi mat na nañu gën a góor góorgóorlu ñu xool lan moom marché wut ñu def ko pour ndam mën a ñëw teguñu ko ci buñ ko teg ci ay blessure encore une fois de plus bi ñu bu ñu bu ñu wax ni euh, yaa yaa yaa yaa des blessures euh, moo tax ni non non non non ñëpp ku si nekk war nga mën a remplacer sa morom pour ndam li mën a ñëw. lan nga yaakaar ne Sénégal moom la war a mën a defaat ah, pour mën a génn ci prochain match yi di ñëw. football xam ne gën góor góorlu xam ne ñoom ñoo fi war a mën a indi ndam li te dafa jot. amul leneen li ñu leen wax rek chaque Sénégalais yi joueurs yi chaque année loolu la leen di wax. Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xamante ni. Euh, yàlla dafa def ni ku si nekk mën nga commentaire sa bopp sa événement su jotee match yi ku si nekk da ngay nekk. ku nekk coach. ku si nekk da ngay nekk coach mais lenn rek la moom mooy nañu gën a góorgóorlu xam ni dafa yàgg bi ñu waree andi ndam li. ñu jour yi kese ñoom ñoo mën a xam jël seen conscience bopp xam ni ñoom ñoo war a muyalee muyu xam ni ñoom ñoo war a andi ndam. jaajëf ñu ngi lay ziar kaa ji jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, Sénégal 7 merci beaucoup et encore une fois de plus félicitations à tous les Sénégalais gën a lu gën a góor góor lu ndam na mën nañ ndam Sénégalais yi na mën nañu ndam ñu bay final ak demi na nañu andi coupe bi. man contenté la am parce que demoon naa ba découragé match bi. mais xam nga comme senegal dafa am lu ma bindoo mooy dëkk la boo xam dëkku ñaan la dëkku teraanga donc euh, bi match bi jafee Euh, bépp sénégalais boo xamante ni am na foo mën a dugg donc def nga ko pour ñu mën a génn si marché bi. est ce tamit équipe bi bi Sénégal andi tey dalal na xel. waaw euh, en tout cas football moom football la tudd. football football la tudd. donc euh, ce qui est important booy xool premier mi bi ñu débuté ñoom ñu ngi doon cee ballon bi normalement di def des tactiques comme il faut demoon na ba ñee perte. li nga xamante ni moom mooy mooy seen seen seen seen seen seen contrôle donc par la suite nag bu ñu demee au niveau de deuxième mi-temps bi si li récupérer match bi donc ñoom continuer di def euh, ay tentatives sénégalais yi donc demoon nañ ba bàyyeeku. malgré nag les failles comme ni nga ko waxee ah, y a des manquants peut-être yooyu da siy joué ça c'est vrai. mais est tamit manquant bii nii warul gën a yee Sénégalais yi parce que ku mel ni Zimbabwe Sénégal am manquant bi nga xamante ni difficilement la ko gagné est-ce que tey jii yoo nekkul yoon na kër yi tey jii war nañoo mën a am banc boo xam ne tey ji même bu ñu dajee ponkali ku ci mel ne Algérie a affronter gagné ko. effectivement sama frère na ko léegi donc euh, comme bu ñu xasee ba convoqué 22 heures. donc war nañu fexe ba 22 yëpp ku nekk mat sa place maanaam tey suma ma la génnee rek na fekk su ma ñëwee rek war na fekk war na mën naa nekk sa place bu ko mbir foofu parce que loolu la fédération bi donc dañ leen indi pour ñu liggéeyal sénégalais yi donc wax ni bu Ismaïla Sarr blessé wala keneen blessé rek donc équipe bi dafay am faay da ciy feeñ donc loolu moom ça reste le travail de de la fédération football du Sénégal et le staff de l'équipe nationale donc ensuite ak le président de la République au moins mooy itam war na war na ci mën a ñaax sénégalais yi ñaax l'estafu équipe bi ñu mën a xool nan la ñu mën a saytoo équipe bi parce que chaque année du ñu am yaakaar porté si ci ñoom ñu ñuy décevoir comme ça donc ñoo ngi leen di ñaanal kan bi ñu dugg yàlla may ñu ci lu gën a sore suñu njortu te incha allah am nañ ci yaakaar bu baax performance mii ngi fi euh, talant bi mi ngi fi mais itam li des daal euh, ñaan rek nañ ñaan na sénégalais yëpp ñaan parce que man Podor laa jógee Podor laa jógee ñëw fii seetaan match fii si terrain ACAPES bi mais en tout cas je suis très content daal vraiment. ñu ngi lay jaajëfal kàddu na macha allah. ñu ngi remercier yëpp di leen jaajëfal yéen itam ci ci leeral bi ngeen di jox sénégalais yi pour vraiment euh, dina ci baax trop parce que lii dafay gën a dafay gën a dëgëral xam naa ne daal sénégale yi bëgg nañu équipe bi. kon Aliou Cissé ñoo ngi koy lancé appel ngalawaay ak ñoo ak équipe bi ñu sargal euh, sénégalais yi sagal ñu parce que il est temps coupe bi fi il est temps il est temps bi dalul xel dalul xel quoi parce que li ñu gis moom vraiment doyu doyu doyul Sénégalais yi quoi ñu ñëpp dañoo tiitoon quoi. heureusement ba mu amee penalty te man sax penalty bi amoo soon yaakaar pour man Sadio Mané da koy raté mooy sama joueur nag mais. amuñ si woon yaakaar quoi mais vraiment li ñu ko sugu moom dalul xel quoi li ñu ko sugu moom jëlul coupe d'Afrique moom vraiment. est ce que nekkul tamit absent yi ñu am moo bon mun na nekk mun na nekk ab absent yi mais absent yi bon taxul tamit taxul dara parce que li ñu gisagum moom ah vraiment. absence ak ñàkk absence moo ci yema ah. li ñu gis moom dalul xel quoi pour l' instant moom xamaguñu nag yeneen match yi tax joueurs yi wala entraîneur bi dinañ changer méthode wala joueurs yi tamit gën yokk seen performance parce que affaire yi moom xeex la rek affaire gaynde la comme ñoom lañ moom nañ fexe xeex rek. loolu nee nga amul absence moom moo war a mun gagné Zimbabwe ci biir match bi. non xam nga man du ma spécialisé trop mais damay seetaan ma spécialisé trop ci match mais li xam nga. football Afrique moom xadar la amul football bu rafet xadar la xeex la football Afrique loolu la xadar xeex kese la waaw loolu nañ nañ gën a xeex rek li ñuy yokk xeex bi nañ gën a yokk rek après saa ira quoi.